te ñu ngi ci gis seen bopp bu baax liggéey noowul la waaw liggéey la boo xam ne noowul liggéey xaalis gënu ko sell bay dundee alal gënu ko sell waaw te tey kon police la waxee rek jaamu leen yàlla yaakaar suba ngeen dee mais liggéey leen ba yaakaar ni dootoo leen dee waaw te tamit aussi kon ko waxee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggam góor yàlla su mu saan ñuy sa bi oyof da xoolaat mais bu doon ñëw sa loxo dëgg da koy téye bu baax da koy gëm parce que xam ne loxo bi loxo jàmbaar la <laughs> loolu bokk na ci góor yàlla yi waaw mbay moom ku ne xam na ni non baax na ba fu ba ba fu baax yem kon maa ngi ci ñaax président bi que ni tam aussi mu projet bi mu jàpp bu baax a baax a baax te xam ne luy jëmale Sénégal kanam la luy jëmale jeunesse bi kanam la waaw te defee tey ku ne xam ne ni tey ñu dugg ci gaal yi dem bëri nañ te tey bu projet yi ubbeekoo dina néew ñu di xalaat yi génne dëkk bi waaw idée la boo xam ne ni wax dëgg yàlla man gis naa ni bu ubbeekoo dëkk gis naa ñu dem sax dañu retourné pour liggéey si waaw ne dem nañ mais dañ ñibbi si pour si fekk ñu dem ay jàmbaar lañ dañu yor seen yaay pour leen teral te doo bu góor boo juddoo nekk góor rek dama mos a ànd na ba sonn ma ñëw fekk sama yaay tëdd Casamance sama ñëw tëdd ci kaw projet si suuf ne ko yaay sonn naa tey daaw naa huit kilomètres tey moom entraînement yi Casamance mu kon bu yàgg na ma monsieur mun naa la yërëm ci lu nekk ba dem si coono ko ci. Mhm. soo dem àndoon ni entraînement bi wax dooga kon nag boo am na lu wékku kaw gay na daal léegi séeréer si wax njogoy ne. wala ñu ñaax bu baax ba dëgg yàlla. que nañ dem ba jeex. Mhm. lii suñ ko defee. dina yokk réew mi te dañ gis suñu bopp te suñuy doom tamit aussi dañ mën a toog ci réew mi liggéey.